li ko waraloon mooy wax waa Mbàkke ne fi teg seen tànk pour bañ a fay ndox fu dëgër la ndox mu bon mu naqari moo xam ne day indi ay feebar. bañ ko commencé ak léegi ki ñu ko séqal chaque jour ñu ngi gis ne moom fi mu teg tànkam mi ngi nërmeelu ñun suñu teg fi mu teg suñu tànk mi ngi dëgër. parce que ñi fi fay ndox lu mat bientôt deux ans bëri nañ te kenn coupé wu leen te bu fekkoon ni nekkuñ si yoon dinañ ñu coupé ki fi kiy jaay ndox mu bon mi tamit reconnaitre na ne moom dina ñëw. Euh, def ay amélioration maanaam ñëw na fi proposer usine de traitement ñëw na fii ne dinaa wuti ndox mu neex puus ko mu ñëw Mbàkke comme ni ñu koy defalee waa Dakar donc ñaar yooyu mu wax day prouver suffisamment kii li muy jaay baaxul parce que boo doon jaay lu baax doo ñëw di wax lii. léegi nag bi ñu demee tribunal comme tribunal moom boo fay bëree bu la neexee nga génn ay galgal dafaa nekkoon di galgal naan ndox mi baax naag yàgg nañ ko naan nag amul problème tribunal ne ko comme ñii dañoo ñëw ak ay firnde. yow it da ngay ñëw ak ay firnde boo ko mënul ñu seet commande ci seet commande googu nag ci la désigné woon institut pour mu ñëw Mbàkke ba baax léegi nag comme ci état lañ nekk am na ay pression yu mag yoo xam ne amoon na ci biir ba tax ñoom ñëwuñ parce que waroon nañ fee ñëw avant fin février mais ñëwuñ ci ginnaaw gi nag ci la ñuy waxtaan parce que ñun bi ñuy xeex dañoo ànd ak kuréelu avocat ànd ak ay scientifique ñoo xam ne dañoo xam ndox fi waa institut Pasteur jànge fa lañ jànge moo tax ñun analyser woon na ndox mi foofu ba institut Pasteur wax na ndox mi baaxul ñu yor résultat yi denc ko bi leen bi waxee xool leen ndox mi. ñu nekk di lakk ay daadaa amuñ jot a xam amuñ ji xam-xam ak yooyu ñu jël preuve yooyu jox ko avocat bi loolu moo ko dimbali ba finalement ñoom ñu reconnaître ne dinañ ñëw Mbàkke institut Pasteur nag institut bu mag la boo xam ne bu bëggee def liggéey bu jaar ci yoon dina ko def donc waa Mbàkke am nañ ci ñoom confiance parce que ay doomu Sénégal ñoo fa nekk ñu analyser ndox mi jaarale ko ci yoon wax ne ndox mi ndox mu bon la ak lu mën ne coûter état bi parce que wax ne ndox mi ndox mu bon la daa am yu bëree bëri yoo xam ne day topp ci gannaaw ci loo xam ne day dis ci état bi ndax dafay war a delloo nit ñi li ñu fayoon ndox keneen ku am ndox mu bon day mën a jug réclamer ndox mu baax comme waa Mbacké feebar yi nga xam ne daa bàyyi ko ci ndox mi tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci état bi seen responsabilité day engagé wu. yooyu noonu yëpp nag moo tax dossier bi diis li li ñu gën a dimbali nag mooy ñu yaatal bañ a fay facture xam ne dara duñ ci fekk ndox mu bon miñ bañ a fay ñuy cumuler facture facture yi ñu xam ne bu ñëwee nañ ko téye comme coupé wuñu rek baax na ndox mu naqari mi ngi ñëw ñu ci raxas. di xaar ndox mu neex bu ndox mu neex mu ñëwee nag ba commencé ci la ñuy commencé fay mais li xaril yi duñ ko fay te dañuy xaar xaalis ñu remboursé ñu 10 ans yi weesu bu ko defee ñu mën a financer suñu projet ndox mu neex mu ñëw ñu mën cee bay daal di ci euh, ñu jox ñu ndàmpaay également parce que dañoo ñoo teg ay feebar ci loo xam ne ñoom ñoo ko tey. ci ci waa waa seen nañ ne euh, dinañ ñëw ngir commencé gas yooyu noonu liggéey bi ñu ko waroon door ndax door na. waaw seen o bi ñu ñëwee dañoo def appel d'offre publier ko dans les journaux mais boo defee appel d'offre da ngaa war a koo xam ne moom moo ñëw def travaux yi ku ko gañe boobaak léegi bañ ko waxee identifier guñ kenn ko gañe yaakaar naa weer bii di ñëw ci lañ war a wax ku ko gañe donc loolu après gasang fi def ay tuyaux yu bëree bëri mi ngi ci biir li ñu war a xam daal mooy ñoom ñi ngi gañe Mbàkke xaalis bu bëree bari te investissement yi nekkul loo xam ne lu seer na buñ ñu fi investiroon bu ñu defee trois ans investissement yi dana génn bu ñu trois ans investissement yi dana génn ñoo indi fi ndox mu baax di ko jaay ñu si prix bu normal donc ñun appel bi ñu doon wax waa Mbacke lañ koy wax lii seen xeex la ñoom ñoo war a jug xeexal ko seen bopp demandé ñu jox leen ndox mu baax respecté leen comme ni ñu respecté waa Dakar war waruñ ñëw fii jël ndox moo xam ne yow liñ ci dépensé pour am ko lu tuuti la nga jaay ko ay nit prix bu cher dem dakaar dépensé ci ndox xaalis bu bëree bëri jox leen ko jaayee leen ko même prix donc lii seen xeex la yéen a ko a xeex ngeen xam ne jaamu yàlla la keneen du jóge feneen di ko xeexal ku ci amul information nga jug laaji information ànd ci xeex bi xam ne Mbàkke moo ciy gañe yow yaa ciy gañe jataay bi nag maa ngi leen ko doon bëgg a sànq ñi fi teew bëri na mais kenn du fi jugee yóbbaale xaalis waaye boo fi jugee boo ci jàppee ëllëg njariñ la mën naa agsi sa kër am na yeneen jataay rek mën ngaa ñëw jox la ceeb wala ñu jox la xaalis nga yóbbu ko waaye boo ko lekkee fa la yem te lii ngay xeex nii bu ñëwee amal na la njariñ non seulement ci bépp fànn bâtiment yi ngeen di gis bu ci waroon a am durée de vie cinquante ans du ko am ndax mi gàncax garab yeeg fépp la ñu ndox mi lor donc nag ñëpp jug maase ñu xeex ko mu jóge fi. borom si mu ñëw euh, Birahim Seck seen woon na combat bi wax ne musta gis xeex boo xam ne nii lañ ko defee teg ko ci wàllu xam-xam teg ko aussi ci yar ak teggin parce que ñu ngi toog fayuñ facture mais yàquñ fi dara manifester wuñ defuñ dara dañoo toog di xeex lépp sur le plan juridique. léegi nag loolu moom daf ko rafetlu woon ak fi nga xamee dañ faa jaar ba tënk leen ci xam-xam ba gañe leen ndax ñoom bi ñu fa demee dañ leene a condamné ci phase bu njëkk bi ñoom ñi ngi lawtoo nii rek mais xam nañ ne tôt ou tard dañuy mujj tarxiis parce que même kañ ci dugaloon muy institut Pasteur ne ko analyser muy jéem a ragal moom it daa am fu ko jàppoon ba mu mujjee nangu léegi nag xam-xam boobu mu gis ak méthodologie boobu nga xam ne jëfandikoo nañ ko moom la rafetlu bi mu fi jógee nag ñu jox ko jumtukaay yëpp wax ko fan lañ jaar mu copier li nga xam ne moo am Mbàkke nee na da koy yóbbu si yeneen dëkk yi nga xam ne dañoo am ndox mu bon pour ñu mën ñu cee roy waxoon nañ ko nag ne ko comme yow am nga impact ci état bi ak ay autorité foo mën a àggale suñu xeex na ko fa àggale mais depuis booba nag amaatuñ ay retour si ñoom doon nañu woon ak di ñu laaj fan ngeen analyser fu ngeen jaar lu ngeen def ñu doon leen conseiller di leen orienter.